شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله إقامة الصلاة إيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا أعوذ بالله العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله وكفى وصلاة الله وسلامه على النبي المصطفى وصل اللهم عليه وعلى آله وأصحابه بكرة وأسيلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه qawli assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokk yi déglu hadis di jour noo ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen balu xaq di ñaan sunu boroom subhaanahu wa taala mu boole nu baal lépp lu nu jaamu suñ borom yàlla nu ko nangul lépp lu nu toggoo ci ay rëcc-rëcc yàlla na ko suñ borom subhaanahu wa taala jéggal di ñaan suñu boroom subhaanahu wa mu defal nu ak dégg gu ànd ak topp xadis bi nu leen di indil tey ci seen xadis di jour anas ibnu malik moo ko nettali anas ibnu malik moo ko nettali anas moo nekkoon bëkkaneegu yenent bi sallallahu alayhi wa sallam moo daan wax ne def naa yenent bi fukki at ci këram te mosuma jànni waaw mbindaan mu def ak patron dix ci këram te mosu koo jànni ak a jafe léegi ci yenn patron yu fuuy waaw ci yenn patron yu fuuy yi nga xam ne jàpp nañ ne seen mbindaan seen xar la nawloowuñ ko duñ lekkandoog moom waaw pot bu muy naanee duñ ca naanee seen dara dara dara dara seen mbindaan duñ ko bokk ak moom ndax nawloowunu mbindaan bi nawloowunu ko mbindaan mi bu waxee ñu jànni ko dañ koy gëdd fu nu toll wane ne maa lay fay weer wu dee waaw patron bu respecté wul ay liggéeykatam kooku royul yonent bi anas nee na def naa fukki at ak yonent bi ci këram mosuma wax lii nga def lu tax nga def ko ak lii lu tax defoo ko waaye patron boo xam ne fu mu toll merde pourquoi lii pourquoi laa kooku ñàkk a roy yonent bi la waaye boo royoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doo jànni say liggéeykat anas moomu nag moo nettali xadisu tay bi dafa wax ne samitu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallama yaqulu balaa ñoo jàng xadis bi ñu wax leen xadis bi ci li muy wax day wax ci doomu aadama bi defi erreur mooy def ay bàkkaar bàkkaar yi bari ba mu yaakaar ne bu tuuba yàlla du ko jéggal xadis bi ci ñooñu lay wax dafa wax ne dégg naa ci yonent bi sallallahu alayhi muy wax ne suñ borom nee na xaddis bi xaddisul qudsi la xaddisul qudsi mooy lu yàlla wax te newul ci alquran ci làmmiñu yonent bi la ko jaarale ne ko waxal sama jaam ñi ne leen loolu mooy xaddisul qudsi foofu la waxee ne yabna aadama ma innaka ma daawtani wa rajawtani gafartu laka ala ma kaana mink wala ubaali wala ubaali am na yu bind min am na yu bind fiika ka wala ubaali yow doomu aadama bi feeg yaa ngi may ñaan feeg yaa ngi may ñaan innaka ma daawtani feeg yaa ngi may ñaan man yàlla képp wa rajawtani nga may yaakaar man sa borom képp feeg yaa ngi dékk sa borom loxo yow jaam bi di ko ñaan feek sa xol bi yaa ngi ci dugal yaakaar yàlla yow jàmbi sa borom nee na xafartu laka ala ma kaane fii ka lépp loo nekkee ma jéggal la ko lépp loo ma def feek yaa ngi may ñaan di ma yaakaar loo ma def ma jéggal la ko wala ubaali du ma ci faale dara li nga def du ma ci luññutu dara du ma ci xool dara du ma ci gëstu dara feek yaa ngi may ñaan te yaakaar ma allahu akbar feeg yaa ngi ñaan sa boroom feeg yaa ngi yaakaar sa boroom sa boroom nee na lépp loo def ma jéggal la ko te duma ci faale dara mu ne yam na aadama law balaxta zunubaka anaana sama law balaxa zunubaka zunubuka anaana samaayi suma staxfartani xafartu lak yow doomu aadama sa bàkkaar yi bu bari woon ba tolloog sa bàkkaar yi bu bari woon ba tolloog goxu asamaan yi sa bàkkaar yi na ba yegg ci goxu asamaan yi danaa la jéggal te duma la ci faale dara maanaam soo doon def ay bàkkaar di def ay bàkkaar di def ay bàkkaar ba sa bàkkaar tollu ca asamaan ci bariwaay ñu jal ko ba mu tollook asamaan gannaaw bi nga defee bàkkaar yi nga retoufié wu tuub jéggaluma ma ma jéggal la bàkkaar yooyu yëpp te du ma ci faale dara yàlla di lim bañ mooy kuy jëf ci maatay waaye juum jëf jéggalu mu jéggal ku juum jëf jéggalu loo jëf li nga jëf lu mu bari bari bu dee da ngaa réeroon ñàkkoon a xam moo tax nga daan dem fi ngay dem di def li ngay def waaw toog nga ba mu yàgg sa xel mi dellusi nga xam ne lii may def baaxut nga tuub bàkkaar yi lu mu bari bari suñ borom nee na xoolatuma ko yam na aadama innaka law ataytanii bi quraabil ardi xataaya thumma laqaytanii laa tushrik bi shay'an la ataytuka bi quraabiha maghfira yow doomu aadama suñ borom ne soo ma tooñoon lu jege suuf si lu jege lu xaw a daj suuf si ci ñaawteef gannaaw bi nga dajeeg mante te bokkaale woo ak yàlla dara danaa la defal lu xaw a jege suuf si ci njëggal lu tolloog la nga def ci bàkkaar suuf si bu nekkoon cent pour cent nga def bàkkaar yu tolloog quatre vingt wala quatre vingt dix pour cent ci bariwaay nga xam ne xaw ngaa dajal suuf si ci ay bàkkaar waaye ci biir bàkkaar yi li muy bari bari bari bari bokkaale yàlla suñ borom subhaanahu wa nee na boo ko jéggaloo suñ borom nee na boo ma dikkalee danaa la jéggal bàkkaar yooyu noonu le defal lañ jéggal gu ni toll xaddis la bu dal xel waaw xaddis la bu dal xel di la wan ni ak lu manti xew ak lu manti xew loo manti def lu mu bari bari bul découragé suñ borom bëggul ku découragé su ma tuubee yàlla dootuma jéggal ëpp naa wax loo manti doon loo manti def danga nekkoon franc xëy nga sa xel mi dellu si bul ragal naan bu ma génnee ci franc dañ may rey tuubal tuubal te wéer sa bopp ci yàlla yaakaar yàlla ragal yàlla yàlla ma ne boo ma yaakaaree ragal ma bul am looy tiit waaw bul am looy tiit soo ma yaakaaree ragal ma bul am looy tiit est-ce boo ma yaakaaree ragal ma bul am looy tiit yow doomu aadama yow doomu aadama bi boo nekkee góor jigéen dem ba mu yàgg sa xel mi dellusi tuubal buur bi nga ko séqal daf koy jéggale ku deyaaleeg mbon rek la bañ waaye sa xel dellusi si nag génnal ci loosu góor jigéen yi génnal ci loosu franc yi ñëwal suñ borom daf lay jéggal yow mi doon njaaloo yow mi doon naan sàngara yow mi daan dem ci boîte de yi di fecc yow mi daan sol col gu yiwadi yow mi daan meesu yow mi daan yow mi daan yooyu yëpp nga xëy sa xel mi dellu si suñ borom ngoog nee na seexluwuma la rejeté wuma la ñëw rek ma accepté la bàyyi li nga ne rek ñëw li nga def lum bari bari bul ko xalaatati bul xalaatati su ma dee safara laa jëm ngir yu bon yu bari yi nga def rayal nit njaalool naanal sàngara tuxal yàmba nekkal franc-maçon góor jigéen lu mu ci suñ borom séexluwu la boo ñëwee tuub buntu baa ngi nii ubbi na ko li tooy biin pour tuubkat yi kon yii bari na bàkkaar yi bari na mais nag buur bi moo ëpp bakkaar yi moo tax mu ne boo xawoon a dajal suuf si ci bàkkaar nga ñëw te bi ngay ñëw indaale woo dara ci bokkaale ma jéggale ko te boobu sa faatu na nga faatu na nga faatu nga de faatu nga bokkaale bii muy wax ne du ko jéggale mooy boo ko faatuwaale boo ko faatuwaalee boobaa moom c'est jeex na sawara faatuwaale bokkaale erreur la waaye yaa ngi yoroon say xërëm di ko samp di ko jaamu Hmm? sa xel mi dellu na tuubal amul su ma tuubee sama mbokk yi dañ may xërëm ñu bari tey ñu ngi bëgg dugg ci lislaam ñu ragal loo leen su ngeen tuubee ñu ray leen ci ay mystique ana addis bi li ubbee xanaa dégg ko xanaa déggoo ko yàlla mu ne maa daawte nii war a jawte nii feeg yaa ngi may woo di ma yaakaar ma jéggal la sa lépp te boo yaakaaree yàlla jarul ngay tiit ci keneen qul lan yusibanaa illa ma kataba allahu lana mawlaana wa ala allahi falyatawakkal il amul lu la nit mën a def mu dal te yàlla àndu ci xanaa gëmoo loolu bañ naan la boo tuubee ñu yóbbu la ci ay def la lii ak lii ak lii ngay ragal di bañ a tuub tuubal tuubal ku nekk ci lu dul lislaam boo ci dee safara nga jëm tuubal ku nekk ci lu dul lislaam boo ci dee safara nga jëm kon ku def fii bàkkaar lu mu bari bari bari tuubal soo tuubee rek suñu borom subhaanahu wa taala dana la ko jéggal mbokk yi lii moo nekkoon seen hadis du jour tay ak sen mbokk oustaz Makhtar sar ba suba jàmm inshallah taala ñu indi leen beneen hadis asalaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu shahadatu an la ilaha illa allah wa anna muhammadar rasulullah لا أعبد في الكون إلا الله ورسولي للبشر هدى بني الإسلام على خمس خمسة أركان في الدين صوم وصلاة وزكاة حج والشهادتين